boo déggee wax yooyu ma ne poulu Cameroun bi ak Sénégal ak Gambie ak euh, Guinée c'est bien beau suñuy xarit lañu suñuy mbokk lañu suñuy lépp lañu ndax am na mbokk Guinée am naa mbokk euh, euh, Gambie am na ay xarit dëgg dégg dëgg ku mel ne Rigo c'est mon frère au Cameroun am na fa même le LGPR du gouvernement c'est mon frère c'est mon ami mm-hmm. donc di dellu si naan euh, tey jii. Mhm. on est favori de poule bi ñoo si favori. Mhm. ñoo ci mën loolu waxatuñ ko sax xam nga léegi lan la ñuy def. ñoom mhm. ce qu'on demande à nos joueurs. c'est de de continuer d'être sérieux de jouer comme ils savent le faire et je crois que y aura pas de problème groupe bi li ñuy laaj mooy kan mooy nekk ci gannaaw Sénégal du ñu laaj kan la Sénégal kan mooy nekk ci kanamu Sénégal. kan mooy nekk. ci ginnaaw mooy nekk ci gannaaw Sénégal la xool mais kan mooy nekk ci kanamu Sénégal ñun xool loolu. donc le Sénégal va sortir premier de ce de cette poule là. on est ambitieux dégg li mu la wax waxuma man maa la koy wax de man mi nekk ci biir xooluñu kan mooy nekk ci kanamu Sénégal kuy nekk ci gannaaw Sénégal la ñuy laajte. on est ambitieux on a faim et on a la meilleure équipe et les meilleurs joueurs et les meilleurs joueurs d'Afrique encore. alors ci ci joueurs yi.